Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao ciao ciao ciao ciao. Ah. <laughs> Ah! Ciao. bul jël. décroché bul jël. nañ ko doose. Samb jëleen lii. allo. aleykum salaam. baadi kàlla. waa ñun la révélation domicile waaw. loo soxla woon. léegi dama bëggoon a commandé benn kii meew euh, laklé. meew laklé. ak caakiri dolli ma. waaw soow dolli ma. ok d'accord. ñu ñaar. lii lan la nii. do o do. waaw do o o do dolli. waaye doo ci def ma ji ma ma ma dolli ma laklé. ayca ayca ayca waay Youssou ayca Ha ha ha. weere koor livraison à domicile ñëpp a ngi ci biir bu dee ji mbaa ndox ñu indil la ko mairie beeg tribunal bi boobu yow yaay dem ñooy demandoo nga ñaama ah dama fa dem man livraison à domicile ñëpp a ngi ci biir ah dame de fer a ngoog de doone su ma doon góor dangi dangi xel la mooy mooy xel la waaye melas say waaja boo nee melas di nga noppal sa bopp noppal ka lay dàq noppal ña taxawoon di seetaan <laughs> sumbulu naam bàcc li dooni su ma doon góor laa dame de fer di la bëgge rek waaw mag force bi nga àndal xanaa wooroo force bi daal xam nga rek ngéwal boo bëggee loo yóbbu ngéwal da ngay fàtte koor gi sa force lay réer lay laa ak ñaa ngoog de tàngal lak lee jàng waaw kii waaw man kon xàmmee ngeen ni ah, <laughs> yow mii eh, yow xàmmee nga ñu yow mën a jëf lu baax def ko lu ah, lu ma lay yëgal yow bàcc li hmm. dëkk bii na nga ci def attention ndax dóor nañu ba xamatuñu fu nuy dóoree hmm. ñuy aw ci Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa léegi nag ci Muhammad la ñuy aw di nax nit ñi mu xam te xam ne kuñ ñi Muhammad rek sa yàcc ne yasar waaw doomi Abdallah ja moom ku koy mbubboo yaa ngi ci erreur ah, kan ñi koy mbubboo hmm. yonent bi kenn du ko sosal. ku ko fenal day. Hmm. sa kër a nga sawara. moom Mouhamadou Rasulullaay. yow yaa wax nag waa ku ci dóor nag. ah Mouhamadou Rasulullaay di ngëneel yay xéewal yay baawaan. Hmm. te ñu dëkk ci doon doomi askan wi. mais bu suñu ndagu naree yéex nag Mouhamadou Rasulullaay la ñuy woo. doomi Abdallah. <laughs> non. man mënuma daw mi ngi nii de man de yéem na ma. Ah, doomi Abdallah dañu dem. ñii ñii sensible luñ ci Muhammadu Rasulullah. kañ dem daal bu doon saa ma joxe sama baaraam. livraison.